xar bu për maanaam xar boo xam ni du wax du bu naan xam ne daal buy mbéy daa wër di dër. naan mais. loo am naa xar bu muuma. man man man man da nga muuma man li dër laa xeexal. Eh, eh, muuma mhm. moom day xeexal ñi nga xam ne den dër. waaw parce que léegi yamatu sax si nit ñi day xeexalaale mala yëpp. waa dër nag yi. bëy yi am na bëy bu dër fële jënd na si kat kat bëy yu dër waaye sa jàmm xar bu demee bay mbee di dër boobu matul tabaski waaw ay tëbulay man ay ngénte yooyu noonu tabaski daal boo ko bëggee xar sa xar du dër mantane mantane ferme